sant ko nag sëriñ bi may na la sak ndax la gaañ a bëggoon ne sëriñ bi yow la ko jox yow la romb ca tool toolu baay kulli cuun yaag sa mag booba la lay dimbale sëñ Béthio keroog ba nga dawee ni topp watiir ba di daw cangarawe ku sa daw ya mooy sunu raw mani kaasu ataaya ba keroog sëriñ saaliw bam ko jëlee di ko jox mag ñey ak ka wax sëñ la ko lu ci way ay waay dara dara dara dara kaasu ataaya ba sax keroog sëriñ saaliw ba ko jëlee di ko jox mag ñay xëccoo ak ka sëñ bee cëccun la ko jox lu ci way mën ay waay dara dara dara dara ay waay dara ndeysaan lay lay la laaw oh. wane sama waaja baas na fu ngir bëggoon ku ne ñëw bilaay rekk jariñu cant ak wanewu loolu yàlla rekk ko xam réew mi nag ku fi sant ñu naan ma ngay wanewu ñoo kayay wanewu waa ñu ngi nuyu mbooleem ñi seetaan di siyaar di ñaan sëñ Mountakha Mbacké xalifa général di murid suñu borom yàggal ko fi loolu tànn ak wér di ñaanal am di Amdi Modou Mbende Fall xalifa Cheikh Ibra Fall ah, suñu diggante ak Amadou Gueye Fifty muy nit ku baax di suñu xarit ñu mbokk fee ca Ndakaaru mu ibbi fa ab restaurant yàlla dogal ñu fay dem di xéwlu ba suñu boroom boole ñoo moom muy taalibe bi sëñ Saliou te ñu ay ñu ay ndaw di ay ndawi sëñ Saliou mu doon ku baax bis bii di ñaar rakk yi nga xam ne moom mu koy amal ku gis mbooloo mi fi dajale nga xam ne Amadou Gueye nit ku baax la bëgg mi wax ci digganteem ak Serigne Saliou lu am la tey boo xoolee Touba kenn desul Ndakaaru kenn desul ñëpp ñëw na rek ngi wuy si ko maamaat ci beneen jàngat nga xam ne Serigne Touba keroog bi ñu koy indi fii ci Ndar tubaab bi da ko téye woon fi la natt bi tàmbalee woon waaye démb ku gis bi mbooloo mi yegsee motaar bi tàkk oto yi ji lante ñu ñëw jëm si Ndar ngir màggal ñaar rakka yi sama yaram daa daw xam ne Serigne Touba am na ndam am na ndam lu rey ndax ku xalaat bañ fi indi Serigne Touba ngir tëj ko kasoon taxoon fii ci bureau gouverneur ngir tee koo julli te Sëñ Tuubaa julli démb motaar yi tàkk ñu ñëw pour màggal ñaari rakkay ndar nga xam ne Sëñ Tuubaa am na ndam kenn Sëriñ Tuubaa ñoo ngi ñaanal Sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem jabar Sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafal tey nag ko gis ñu ñëw ndar ak ci màggaayu ndar ak ci tedd gay ndar dara du la jaaxal ndar ku ne xam ne histoire murit lu ne am na fi ndax Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom la ñu gëm xaadimul xadim def na fi loo xam ba adduna tukki du fay 5 septembre buñ ko tuddee sam xel du dem ci kenn ku dul Sëñ Tuubaa sam xel du dem ci kenn ku dul Ndar tey jii tubaar macha allah fu ne ci réew yi nit bàyyi ko na fa ñëw Ndar ngir màggal bis bu tedd bii di 5 septembre bis bi Sëriñ Bamba ñëwoon fii ci Ndar def fi jalooro ju rëy yi Amadou Gueye fifti di taalibeb Sëriñ Saliou Fat Jaxate kenn woon nañ ma jox ndaw ñi ma def ñoom la Sëñ Bamba defan ca mag ña donte yëloo ma ku ma barkeeloo ko ànd ak ku ma am njabootuk sëñ Tuubaa gi njabootuk Cheikh Ibrahima Fall gi njabootuk sëñ Daaroo sa njag gi ñëpp ñëw mboolem koo xam Tuubaa nga dëkk dagg nga sa yite kenn rek yëkkati la di taalibi Serigne Saliou Amadou Gueye Fifty di nit ku baax di nit ku yiw daal ni ndar laa dëkk waaye nag dama amul benn bis lu dul 5 dama koy màggal génne li ma dencan woo samay xarit woo samay soppe woo samay sëriñ ñëpp ñëw fekk ma ndar ma tant ren di bernde sant seexul xaddim ndax sëñ tubaa ci ci am ndam la dëkk ndar nag tubaarkàlla masala di réew moo xam ba adduna tukki du fay dëkk bii ndar ku dégg sëñ tubaa fu turu sëñ tubaa yu àgg rek ndar dina fa àgg taalibe sëñ tubaa yi moom ndigal rek la ñuy jëfe ndigal rek ci ndigal la ñuy xëy ci ndigal la ñuy gont ak lu mën a xew kofit moom ku ne xam na ni tas na tas na kapp ci réew mi ba tax ndar ku musaana ñëw ndar fekk ñaari rakk yi bis ni tey ji ku fi musaana ñëw dëkk bi kenn du fi xaj fu waay mbattu mu toj waaye Amadou Gueye Fifty dañuy man taalibeb Serigne Touba laa 5 septembre laa fonk dinaa woo samay xarit woo samay soppe ñu jàng alquran jàng xasaay bi waxtaane baaxuk Serigne Touba gi suqaliwaat ndar waaye nag dinaa respecté mesures mesures barrières yi nañuy takk masque yi tey laal sel waaye nag di waxtaane Cheikhul Khadim lii mooy ndar Fifty moom li Serigne bi digle woon ci ndar lépp def na ko sama xol sedd na wasalaamaaleykum wa rahmatulah yéen nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax nag yéen waa 24 actu 24 actu nag day wenkaat boo xam ni ñëpp war nañ ko fonk ndax euh, site la boo xam ni baaxu sëriñ bi rek lay wane baaxu sëriñ Tuubaa rek lay wane ndaje yu baax yi rek lay wane ñu ngi leen di sant di leen ñaanal ci darajee Sëriñ Tuubaa mboolem fu ñu dégg média ngeen àgg fa ci darajee borom Tuubaa sama xol sedd na kontaan naa. sëriñ tubaa nekk fi sëriñ Tuubaa ñu ngi ko ñaanal mu yàgg fi de lool te wér te ànd ko taalibe yëpp moom lu mu yéene sëriñ Tuubaa yàlla mottali ko dëpp ko kattan tàggali mbébélam mbébétam ci liggéey sëñ Touba. amadu Gueye fis ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaare di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla doole taxawu yàlla dool ko dimbili ndax Amadou Gueye taalibe Serigne Saliou la te taalibe la boo xam ni nii sëriñ bi bëgg ab taalibe mel noonu la mel. ca Ndakaaru waaye fii ñu ñëw nag fi la fekk baax mu ndar gi nga xam ni tabaarkalla liw bi liw bi ngelaw li fi la Serigne Touba jaayanteeg yàlla tubaab bi na ko déet du fi amee sëñ ko dina fi amee kon nag looloo waral suñu daje fii tey jii ci barab bii nga xam ne mooy ndar nga xam ne mooy ñaar rakk yi sëriñ bi julli woon waaye nag ku ñaan ñàkk waaye ku jënd yaa moom ku dekk ci lu baax di liggéeyal sëñ tubaa lu baax dara jomb la moo waral tabaarkalla ku mu am Ndakaaru ku ma am ndar ku am Sénégal tey ji ñëpp bàyyi nañ seen yitte ñëw fekk ci ko ndar ndax lan garaat bi ko Sëriñ Tubaa takkal ndax Serigne Saliou Mbacke daana wax ni liggéeyal Serigne Tubaa du si yërëm kenn ndax pay ga laa xam nu mu toll kon nag moom bi mu ne bëgg naa sëriñ Saliou waxu ko du ko jëf ndax tabaarkàlla amul benn bis boo xam ne amul gay dana jot nga dajeek moom wala nga gis ko wala nga dégg ko. te du dul wax lu baax wala mu def ci lu baax bari na jëmm yoo xam ne nee ma ba nu gëjee génn wala ñëw ndar yàgg na waaye jëmmi Amadou Gueye ak pëseefam ak bëggam lu baax ak liggéeyal Sëñ Tuubaa ak ni mu def nit ñi ak fonk gim leen fonk moo waral tabarkalla fi jamono toll ñu ñàkk jom sax amul jot ak tamit ñi jom waaye tabarkalla ñi ngi fi gis ñëpp génne leen yombul waaye bëgg gi bëgg Sëñ Tuubaa tamit dëgg ci moom ak ni muy liggéey Sëñ Tuubaa doon modèle boo xam ne tabarkalla ku jaxasoo ak moom boo déggee Sëñ sax sa bëgg ci moom dana gën a yokk ndax jëmmam te tamit bi ñëwee fi tabarkalla waajuram yi dañ koo gërëm ñi ko jàngal alxuraan gërëm ko tabarkalla ñi mu àndandoo doon xale jàngandoo ko alxuraan tabarkalla ñëpp di tiituroo moom cër bi mu am nag ci ndar la moo ko liggéeyal boppam ndax ndakaaru gee mu nekk ubbi fe barabam boobu di fa liggéeyal yàlla ak yoon bi ak sëñ Tuubaa mboolem ku dëkk ndara jël na la yóbbu la teg la ci barab ngay liggéey ngay am looy suturoo di ko yóbbu say say bokk kon nag liggéey bu rëy boobu tabarkàlla bu ko ci yàlla fayee bu koor jotee mu def gratuite togg ndogu yi togg reer yi tabarkàlla boole nag poosam tabarkàlla di dimbali nit ñi ci discret te boole ko ko wax kon nag jëf te yàlla rek a tax lay def ñu koy ñaanal gudd fan ñaanal ko wér di ko da ko ñaanal yàlla na daje a sëñ tubaa ndax fii jamono tol jot daal amul waaye jikkoom ak mbaaxam ak ak bëgg ñu bëgg sëñ tubaa mu fi nit ñi bu ngeen déplacé wu jóge Touba ñëw fii ci Amadou Diop 50 muy sant Serigne Touba Cheikh Saliou di màggal fii la 5 septembre 1895 nga xam ne fii la Serigne Touba julli woon ñaar rakkee naafilaam yi bu ngeen ñëwee dañ leen dalal ci jàmm ngeen ñëw fekk suñuy wajur Serigne Cheikh moom sëñ Moussa Serigne Massamba mi ngi nii toog euh, di kilifa gu mag jóge tubaa ñëw ngir Amadou Gueye 50. yàlla dogal ñu toog ak tamit sëriñ Mamour Mbacke Dende sëriñ Jili Kajoor sëriñ Xarim Ndiaye si jaan di sëtub sëriñ Mor Ndiaye arène njabootug sëriñ Touba gi ñëpp ñu ngi nii toog yooyu yëpp bu amee li ko waral mooy jëmi Amadou Gueye moo baax ak it ànd ak nit ñu baax ñi ñu koy jàppale ci yu bëree bëri bis bi daal dara taxul ñu ñëw fi lu dul jàng alxuraan togg ay ñam yu sell jox ko jaami yàlla yi guddi ñu fas yéene jàng xasida yi àndante ko dundal li taxoon pas-pasu Serigne Touba ñëw ci loolu moo tax ñu ñëw ñun ñëpp wuy si Amadou Gueye fi lit yëpp dañ nañ jàppoo ci génn buum moom ñi jóge kër Serigne Blaat ñi jóge kër Serigne Saliou ñi jóge kër Serigne Moustapha Saliou ñi jóge Ndaam yoonu murit seex yëpp commerçant yi ay ay vengem ñi màggandoolal boo xoolee tapis vert restaurant bi da koo tëj ñëpp ñëw ñoom seexu naa ngi nii li tax mu am loolu nag mooy yitteem ak nangoo respect doomu aadama ak it képp kum déplacé mu wóor na mettre bonne condition ak bëgg sëñ Saliou ñun ñi nga xam ne njabootu sëriñ Saliou jaar ci ay daaram mën nañ ko koo seereel diiran koor gépp restaurant bi mu amoon Ndakaaru mu gën a tappeer da ko defoon gratuit ngir jëmmi sëriñ Saliou yooyu yëpp ci pas-pas la dafa jël àlalam jox ko sëñ Saliou ba mu jeex moo tax nit ñi wuy si ko ngir jëmmi sëriñ Saliou ak aw melokaanam ay waajuram gërëm ko yaayam dem wax na bay jooy ak baayam léegi bu ngeen gisee mu demiwaat nii da ngeen xam ne kon dundul lim am ci sëñ bi rek ngir di ko lekk da koo jël delloo ci sëñ bi jox respecté njabootu sëriñ ndax ñoom sëriñ Cheikh ñi caaxantul ñu yëkkati buñ jógee waxtu bi ak dëkk bi ni mu xate yitte ni ñu bëree ak ndar ni mu xëcce da xam ne am na lum leen wan ci taalibe ak respect moo tax ñëw ñu delloo ko cër bi xam ne kenn du bëgg sëñ Tuubaa duñ la jàppale ñoom kasa tey dañu ñëw nag ak cant ak mbégte comme ni ko Amadou yàgg defee rek ñëpp xam nañ ne Amadou Gueye Diop doomu ndar la nekk responsable tapis vert ñu koy wax Amadou Gueye Diop fifty bu Serigne Saliou a ah, gannaaw nag moom dafa nekk euh, murit boo xamante ne yaa ñëpp xam nañu xërëm ak euh, ñàkk caaxaanam ki Serigne Saliou ak ci liggéeyu Serigne Touba ba tax na ñaari rakk ren yi mooy ne da koo fasa yéene berndeel képp ki nga xamante ne moom lu ko yàlla booleel muy ay am di jàmmam ay mbokkam ak ay xaritam ak ay nitu démbam ah mu nekk euh, ñaari rakk ndar yi rek ñu ñëw. ab bisu cant daal. service libre bernde bàyyiwuñu ginaar pigeon nag xar bëy ba ci gëléem fii dara manqué wu fii lépp rek pour nit ñi bëgg jaamu yàlla yi lekk ba suur naan ba màndi comme ni ko sëñ bi di defee 18 safar ñu tàmbalee ko ni si ñaari raxandaar yi. yu gën a doy waar xale gis nga table bi sànq dressage bi tapis vert c'est c'est top tapis vert moom amuñu yaa rien à dire lépp fi lay xewee dressage yi ah foie yu baax yeeg lépp tubaax fakkaar lépp a ngi fi. macha allah dara manqué wu fi waaw mi ngi noonu daal ndekki nañ ba suur di waajal añ bi incha allah ci kanam tuuti ñu def bi fi bu baax reer waxtaanee yàlla waxtaanee sëriñ bi sant yàlla remercier jaam ñi ñu daal di berndeel ba fajar waaw jëmale waa suba ëllëg. ak contexte fu mu ne toll may wax si turu équipe Tapis Vert yëpp laa waxal parce que man moom amaana maa ci gën nekk ndaw waa yàlla man la dogal tey ma ma wax donc ñëpp laa waxal ñu ngi nii ay jàmbaar lañu comme sunu patron ñu ngi daw. gauche droite pour mbégte jaam ñi ñoom ñëpp kontaan nañu ah ab sawarte lañ ñëwee Ndar ab contentement lañ ñëwee Ndar pour servir ak liggéeyal Serigne Touba jàppale Amadou Gueye Diop tout l'équipe est content et derrière derrière lui. sant yàlla rek vraiment parce que li ñuy li ñuy def yëpp dañ ko war a def ndax Amadou Gueye Fifty moom ku ne xam na ni dafa xër ci yëfu murit bëgg Serigne Saliou trop man mënuma wax nag mais bàyyi naa ko Serigne Saliou. parce que dëgg la sama xarit la sama xarit la xaritu ñëpp sax laay wax suñu xarit la bëgg nañu def nañu comme nu ñu bokk ndayax baay ñu conseiller di ñu jàppale nag ci lépp man sama bésu anniversaire la tey mais lu ma wax rek mu ne ma sa bës la lu ma wax ne ma sa bés la euh, lépp lu gën ci man leen ma gudd fan man ma seet. Euh, yal na ko yàlla def ci barki alxuraan karim. ah kontaan rek mbégte rek di ñaan yàlla teewe ko ay at yu bëree bëri bëri waaw. Amadou Gueye ah nit ku baax la de dëgg yàlla moo tax ñu woowee rek dañuy sawar a ñëw waaw nit ku baax la waa waaw ñu ngi ziar bu baax tur bi Mouhamed la Mouhamed waaw. Daabe waaw Amadou Gueye nekk suñu grand bu baax a baax a ñun bu ñu ko xamee ba léegi rëccuwuñ ko waaw ñun amaana sax ñun bu ñu xamantee yàggul mais am nañu yàlla boole yàlla moo ñu boole boole boo xamante ne tey jii moom fu mu woote dañ fekk si bu ñu newoon fii ba Gambie dañuy dem Gambie ànd ak moom incha allah. waaw Amadou Baye Fall la de Baye Fall taalibe Amadou boo ko fekkee si biir mbooloo bi doo xam ne kii mooy Amadou Fifty ndax oyof wàccee boppam. barke alxuraan moom maanaam taalibe la moom Serigne Touba rek sëñ Saliou moom loo ko woowu si loolu xoola bëgg ko billaay wallaay ñun bi ñu xamee nag ba léegi rëccuñ ko di ka ñaanal yàlla mu yokk ko ba ca kaw a kaw a kaw allah jaajëf